xam ni yaa leen mën doo seen maas. ñëwal samba si alias Kouthia amoo maas. ñëwal yaa ngi bëggal àdduna. tàyyi woo benn yoon. ñëwal waat naa ni bésu penc duñ la laaj benn yoon. lépp lu way doon def. ba 18h bay di ay nga ka daw te romb ni ko il est 18h. bay di lundi mardi mercredi ba vendredi. ñëwal dafay yeex ba duñu yàkkam ci sax vendredi. yoon ñëwal émission number one. mooy Kouthia Show ñëwal dina yeete dina yiit jaaraama Kouthia Show ñëwal loo bëgg mu siw fexeel mu jaar Kouthia Show ñëwal dina siw ba jaaxal la foo tollu naan show bay di cal sponsor yi dofunu visibilité la ñuy bay di foo dem ñu fekk la fa yow la ñuy bay di kilifa diine yëpp yaa leen di reeloo bay ñëwal ay loolu bu la ko seetaan ko di ñaja looy publicité bul sonn di wër télé yëpp dëgg la bu ko tegee ca taabal te mu wër àdduna yëpp dëgg la ceebu waalo bii de ku jaasoo moo ko siwal dëgg la te pourtant gouvernement bee ko waroon siwal dëgg la kon président gestul groupe ku jaasoo ñu ngi dox ci émergence groupe ku jaasoo gis naa ku feebar tëdd ak mënul jóg dëgg la garab daf la seetaan rek liggéeyatoo rek ngir groupe Futurs Médias état bu Sénégal war nañ la ubbil média yaa maandu gore yaa woyof xol bëgg nga say mbokk puuf nga say njaboot yor joxe ka toog askan bi la ñor nitu ajana Kouthia Show Kouthia war ngeen a bég Kouthia war ngeen a am ndam Kouthia ci Kouthia Show Kouthia groupe Kouthia Show ca kaw ca kaw ca kaw yow la neex am Karol Sutura baax na si Karol Sutura waaw waaw waaw mais mais dama ko dama ko taay di wax dafa baax si Karol Sutura waaw waaw lii sa Karol Sutura mbay lii moo si ay mbay rasoir bi rasoir bi mooy gan gi ñëw ana mi collé ayca gaaw rapidement. Ami Kole maa ngi lay fàtte Kole Diop. voilà. Mbaye maa ngi noppali ko ah. waaw ñëwal Mbaye. dañoo ñëwaat suñu produit yu baax yi. waaw muy waa si bopp. waaw de ah, nekk afro bi nga xam ne moo gën ci afro yi. moo ngi noonu. soo ko sa bopp day lis ban. waaw doo am repousse. bilaay doo am crasse. waaw bépp bépp der bopp kii bu bon doo kii doo ko am ndax si. waaw ndax waa si bopp mbay. waaw ndeysaan jëlal beneen. bii nag moom borom karaw nooy ñoo ñoo ko moom. waaw borom karaw jërëjëf ñu jël beneen mu gën a gaaw waaw bii nag mbay mooy bu borom kar yu dëgër ñoom ñoo ko moom waaw lii bee di def loolu la bii di def waaw ñoom ñaar ñoo yem waaw ndeysaan tey day ami waaw lii mooy gel fixateur bi nga xam ne waaw waa si boobu ñooñu indi ñun coiffeuse yi waaw bu yombal nañu suñu liggéey waaw macha allah waaw soo ko defee ci sa der bopp yaay bañ du dagg karaw doo am repousse doo am benn problème te yow lii mooy dégg noir bi waaw te dëkk bi yëpp léegi dëgg ne nee nag dafa poñe mi ngi noonu. waaw bii nii. Mhm. mooy bi nga xam ne mooy blanc bi. waaw lii bee di def. waaw la bii di def. waaw même chose la. waaw mais dañoo liggéey noir. liggéey blanc ah. mais blanc bi du takk ci dara du def dara. ndax benn problème bi la wala. bii pour nit ñu ñuul la. Ah, pour nit ñu ñuul lépp même gërëfaas si ñoom lépp da koy def. macha allah ñu jël beneen. ah mbay. waaw li ma gën a neex sa table bi mooy. waaw waa si boobu dañoo liggéey xale yi. waaw liggéey xale yi ndeysaan. shampoing demelan. waaw diw bopp diw bi nag ñu ko liggéey à base de olive waaw baax ci karo xale waaw baax bay bëgg de macha allah waaw li ma gën a neex nag mooy fàttewuñu xale yi ndeysaan waaw bi bi bi ndeysaan mhm. waaw mbay nag ñàkk la sees wóorul ah, ñàkk ñu table bi wóorul waaw mbay lii waaw bii ni shampoing la waaw bii demee laa la waaw bii xale jigéen laa koy digal waaw ñoom ñu ko utiliser seen dara bopp yi waaw ak seen cheveux yi bii moom sama ko tax a jóg ak kese raw kese mooy nekk. jërëjëf Ndeye Amy macha allah. Ndeye Amy ñu dem si Madaar. waaw mbay waaw ñu ñëw ci Madaar bi nga xam ne mooy xar ci géej waaw xar ci géej gi mhm. waaw baax ci ay douche. waaw baax ci lépp. waaw baax ci sëñ bi ay yére. lii daal xam nga kon lan nga koy tuddee. ministre de la santé. dégg nga lii mbay waay waay waay ma a neex mooy Madaar. daa am jur Madaar. waaw xaw ma jur Noura. Noura macha allah. waaw lii ma di def moom lay def mais na bokkuñu waaw ndax bii da ko gën a man maanaam mooy donj waaye da ko gën a far waaw da ko gën a neex waaw macha allah day dàq weñ waaw day rey ay yoo day sànni xale jigéen ñi waaw jéeg gi dem leen wëri ma dax waaw jeex léegi ñu defal si bu juróom bu fukk lépp bu cent mi ngi noonu léegi nan ngay wax si meew mi nii meew lekk na cent yaa ngi nii waaw am na fukki dërëm am na juróom jeex na loo am utiliser waaw dëkk bi neex léegi meew mm-hmm. waaw meew maa ngi nii. waaw baax ci estomac. waaw baax ci mag ñi. ndeysaan baax ci xale l'écran. l'écran ah l'écran ngi nii. waaw neex bay bëgg a dee. waaw baax ci mag baax ci xale mbay. waaw macha allah lépp lay faj. ah jaara waaw am estomac di ko naan. jeex na tas jërëjëf bi ak yow kii d'oration yow mi daw ci poussière beeg yooyu. waaw da ciy baax. waaw mbay bii benn jeeg sonatu. waaw ndeysaan saa bi mii maam jaar buy jàng ci saa la ñu koy dugal. ndeysaan suñu nekk laa suñu toog di naan. waaw ñun daal en tout cas. waaw ñu ngi sant di gërëm waa rek la waaw waaw ndeysaan am na bu cent franc am na bu waaw bii nag mooy bu cent franc waaw temps li ma may yaram nekk naa ci la bokk ci cere laa koy def waaw naan moo jur cere ji lépp toj moo jur cere jàpp ma ñu ne woon moo war a lépp may abi loo gis sama table bi may naa sa table bii gis nañ fi table Samba table ma demba mi ngi noonu ah table may benn la fi jërëjëf laa bi bu bëgg seen produit ya ñëwal jërëjëf laa bi ah kon léegi nag maa ngi am sa table ca contentement bu baax di remercier Mbaye Ami Collé ci promotion bi nga xam ne nag moom mooy promotion table bi xam nga ne Sivop moo ànd ak li ko Aminta waxee nag produit yi nga xam ne ñoom ñooy defar seen bopp ndax été baa ngi ñëw tàngaay bi dangay ngay def loo xam ne mooy féexal sa bopp moo taxit Sivop ànd ak yéen ci bépp xeet luy euh, noyyil bopp ak lu koy féexal madaar ci kër gi sa setal l'écran ci xale yeeg ci ndékki yeeg añ yeeg waaye tamit rasoir big bi nga xam ne nag moo ànd ak ñun di setal lépp loo xam ne nag ay gàkk-gàkk jëm ci karaw moom moo ci ay te njëg bi yomb na am na sécurité ñoo la may seen émission Kouthia Show ca cabine technique ba réalisation ki nga xam ne mooy Mao Cissé religion ñu ngi koy nuyu Fatima Evans euh, ki nga xam ne mooy toog mu nekk ca sooba yaaw gv benn jëm ñaari caméra ñu ngi koy nuyu Serigne Sidi Maktar Mbacké xalif général kulu murid ñu ngi koy ziar ko ñaanal fan bu gudd ak wér a kaddu tarixa bi yàlla na ko yàlla defal jàmm moo bañ jàmm ak xéwal sëriñ Abo Mbacke xalif sëñ Fallou Mbacke ak njaboot gi yëpp mi nga xam ne moo leen uuf di xalif sëñ Fallou ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram alaaji Cerno Bachir Tall ca Louga yéene nañ ko jàmm ak xéwal alaaji Cerno Samassa yéen ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram alaaji Cerno Madani Muntaga Tall ñu ngi koy ziar di ziar alaaji Cerno Bokar Alpha Ba ca war a fondé alaaji Cerno Bokar Alpha Ba ca war a fondé waxtu bi ñu wax ak yéen ma ngi ca këram ca Ridis ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ndax xam ngeen ne kooku ba mu bàyyeekoo Mauritanie ñëw na fii ci Dakar ci Sénégal ñu ngi koy ziar moom alaaji Cerno Bokar Alpha Ba nekk ca war a fonde yàlla may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram alaaji cerno abdourahmane bari ca bogol alaaji cerno hamdo aaw ca celaaw alaaji cerno nuuru taal sacré cœur habib gay muhadamu sëñ ñëpp ñu ngi leen di ziar di ko ñaanal maama sugu waadaan sugu fara yàlla ko yàlla defal jàmm ak fan bu gudd gudd kaamil la ma ca waaraan ca Kébémer alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye Cheikh Tidiane Diaw ñoom ñëpp ñu leen ñaanal fan bu gudd ak wér Fatima Fall marraine équipe Kouthia Show yal ko yàlla may jàmm may ko fan bu gudd wér grande huissier ba nekk ca Ndar Géej ñu koy ñaanal jàmm de responsable politique ca PDS moom jàmm rek nañ ko euh, euh, koy nuyu bu soxnam Adja euh, Kiné Sy bu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla guddal fanam ci barke sëñ Babacar Sy di ko ñaanal tamit fan bu gudd euh, di ko ñaanal euh, yàlla yokku leeram tas ñu ci barkeem waaye tamit di ko ñaanal tamit fa mu nekk ci àjjana yu kawe yàlla nañu yàlla tas ci barkeem moom sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum wéetal nañu lool sëriñ Babacar Abdoul Aziz Sy féete la jàngale ca yal na ko yàlla may fan bu gudd ak xel mu rafet bàyyi koog sagom waaye ba ñànk idi di ziar suñu papa te ak soxna soxnam ajaratu soxna Biége Guèye ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak kendalu jàmm suñu bàyyi ju baax di sëriñ imam Diop xalif bu Ngabbu Diop ca Bamba yal yàlla yokk fanam sëriñ Atab dara xalif bu binaa ko sérif ak Ibrahima Mané mooy porte ba yal yàlla defal jàmm lañ ñaan ca gàmmu go yëpp yàlla nangu ko sëriñ bu bu naama Kunta euh, représentant xalif général Kunta Kunta yi ca Parcelles Assainies di président association des pèlerins de Firma yàlla ko yàlla may fan bu gën a wér gu yaram waaye di am mbégte ak contentement ci alaaji Cerno Baaba Nuuru li xalif bu daaree xale bi ak Cerno Alpha Tidiane li nekk ci cité bi yaagi kooku sëtu alaaji Mamadou Moussa la ñu ngi koy gërëm di ko sant di nuyu doom ja ay sëtu euh, Alpha ay satu Euh, Alpha Ly ñu koy nuyu bu baax madame Ly ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaye di am mbégte contentement ci Serigne Fallou Mbacké docteur jëwriñu Moustapha Sène di nuyu tamit bu baax docteur Fallou Samb am mbégte contentement ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan rawatina njabootu Serigne Amadou baraw jegéen xalif général ba sëriñ muniru jegéen yal na yàlla may fan bu gudd uuf njaboot gi yëpp waaye imam ratib as euh, euh, euh, as as boro jegéen ñu ngi koy ñaanal alaaji imam as boro jegéen yàlla ko yàlla may fan bu gudd bàyyi ko xelam ba mu yàgg jiite njaboot gi yëpp waaye sëriñ daam jegéen kenn du moom ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak njabootu jegéen jegéen gi yëpp yal defal jàmm yokk seen maqaama soxna Soukeyna Ndoye nekk ca Senelec direction générale ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak mboolem ku nekk foofu ca Senelec waaye Thierno Aliou Ba nekk ca dëkk bu ñu naan war a fondé euh, tanum ko laa do ñu ngi koy ñaanal jàmm ak wér gu yaram Serigne Gora Seye yàlla dafa leen jàmm mbokk yi tey nag ki nekk ci cabine technique Maawo Cissé la moom moo yor ca xaraga la feggoog Amina euh, Fatima Evans euh, yaawo gervé ci caméra bi toog mbokk yi information bi leen di wax nag information bu mag la ngénte gu moo amoon ca Tambacounda ca Tambacounda ngénte ba mu fa amee nag ñaari meer yi nga xam ne kenn ki dafa bàyyeekoo benn dëkk pour togg ci laax bi beneen maire bi bàyyeekoo beneen dëkk ñu tase ca dëkk ba koo kookoo togg añ bi ñaari meer yi ba ñu wéetee ca toggukaay ba dañ faa jóge dem beru ci benn kër boo xam ne kër ga eggul ndekete meer ya ca boppam kenn ka jaaykatu yàmbaa la kenn ko du koy tux am na ku leen ko doon jaay ak ki ko doon indil xew ba la ko yàq mooy ñaari meer ya police dañ leen teg loxo ndekete maire yooyu ay maire yoo xam ne xam naa ba ñu nekkee xale dañ koo tàmmoon moo tax tàmmulu bon ci xale boo màggee doo ko bàyyi <laughs> maire ca boppam nag kuy togg Sénégal ñoo la dàq togg waaye ñaari toggkat yooyu ah. waxtu bi ñuy wax ak yéen loxo teg na leen euh, euh, euh, police teg na leen loxo dañuy dem nag ca xew ba ma nga amee woon Tambacounda ca frontière ba dinañ ko génn léegi ndax loolu mooy coow li te coow li nag dafa mujj def ay reetaan ñi nga xam ne ñooy policiers yi ndax maire la ñu mujjee mooy état ci boppam da leen mujj a baal parce que ñoom nee nañu dañuy faju waaye dofuñu toxuñu loolu nag ku ko bëgg xam na bàyyi xel ci li nga xam ne mooy ñëw fait divers la ma nga amee ca Tambacounda quartier bu ñu naan pont ngénte gën nag ngénte gu rëy la woon waaye ngénte ga police la mujjee mujjee <laughs> waay waay waay ñu seeti maire bi benn maire bi nag damay bañ maire yi tudd tur bi mere ma ci benn maire bi mu ngi tudd maire Racky <laughs> beneen maire bi tudd Ndumbe <laughs> maire Racky ak maire Ndumbe ak paa bi nga xam ne moom mooy paa Alaaji Caabaas toj nañu Tambacounda ñu xool lu indi coow loolu ba tey journaliste bi ko waxtaanee ñu dem ba Tamba. ajaara ki kaay kaay dégg nga dégg nga waaye toj nañu ngénte li la nga ah. waaye man la ma añ ah. la ma ci añ ba ak la nga laax ma ne bu jigéen kooba bu jigéen ñoo mën a def ana cigarette bi nag cigarette moom ba naa ko la xoolee xam naa ne da ngaa mandi balaa ngay ñuluk waaw man ma dama gis kaw eh, na ngeen def waaw ñun ñoo togg laax yi ak añ bi baax na waaw baax na baax na ñu taxaw yoon la ah, ah, dañuy eh, maaleykum salaam macha waaw waaw waaw. kay jërëjëf. baax na jërëjëf. fii ñu taxaw baaxul. yoon la. waaw. waa ngénte la waaw. saa xam togg. journaliste doom ñun dañ fee ñëw fii rek. Eh, amuñu bit amuñu bit de demal fee ca xew xew baa ngi fee. daal ñaama ñiir demal nekk yor ma paas de. doom ñun dañ ñun day ah journaliste ak géwél. ana journaliste sa ñaan paas. kaay kaay kaay fii baaxul. nañu dem ci kër gu toj gee toog fa. ma ne eh. borom mbaxane bu xonk bi sol garam bu weex bi. xam nga yow da ngaa tëx mi ngay wàññi. boo tuxee fajar ba julli sa ñaari ràkk boo demee ba tisbaar baaral la sa soow tuxaat waaye yow da ngay tux tux bu fii nii doo dégg kuy ñëw maa lay piis xale yi ñu romb kañ dem ci dégg bu yàq alaaji caanaas def naa ko siñ léegi loolu laa ca faale nga fii baaxul waaye yow sa forno bi sa forno bi nag xam nga lan dafa am loo xam ne ñëpp bàyyi nañ ko. ah xam nga muy lan xam nga am jox kenn joxatul. lu xew léegi. léegi da nga koy suuroo. suuroo ah yow yow ngaa yëgul lu xew. a wóor. te la maransu. maransu mooy ba maransu la mooy bu weex bi. yow safle woo. yaa dama ko mixé de. ah kii dama ko mixé pire. safle too de parce que ki ma jaay barki démb moom te dëkk ca Medina ba. Ah. waaw lu dëgg la. suural suural suural suural gaaw suural suural. suurul suurul. suurul suurul. Mm-hmm. laa ilaaha illallaah. loo gis. Oh. na def nànk yow. man la may seen fee lan la. may seen fee lan la. man te damaa teel a jàpp te dara ñëwagul. waaw. suur ma suur ma. suur ma yow. woo yamba laa ilaaha te néew ma màkk aju naa maa ngi ca kaw bilaay maa ngi ca kaw way aju naa ajaara ke mi ci koñ suuru ndoo yamba yamba yamba yamba aju naa ca kaw ay lay la la woo yamba eh, ah. ah, woo yamba ah. way yamba ji neex na baax na si mag de waa noonu noonu tolaa kay mboro di mboro di yàmb ah, baro bàyyi li ngay wax bàyyi li ngay wax yamba ji neex na oh, yaa saf la yamba yamba odo oh, wel yaa saf yamba yamba odo wel oo yamba ji neex na daay eh? daay la laa suura be gën bi ajaratu eh. maa ngi maa lay teggil natt bi laa wax. laa ilaaha illallaah. yéen ku naqaree faj ngeen. mi ngi ci koñ gaar ndéeg. gan gan rax na gan rax na. yow nga def nii. wut jogaa gan gan. yow ku naqaree faj nga. yow yaa ngi yéen nag ba yor leen fi. xool leen fi ah. Linda c'est la police. ah. bu far. wax ko ma woon loolu Allah. dañuy faju de. man gàllankoor woon nañ suur. dañuy suur ay dëmm ñu jàpp garab dëmm. garab boo leen xoolee nga xam ne te foog mu ñëw ñu ma suur li xew lañ fi ñëw de. xoolal kii eh, eh. sa gémmiñ. Hmm. sa wax bari na trop. ay raba ko jàpp doom. laay ay raba ju topp ñun ñooy toog. oubien sa gémmiñ. man maa togg laaj bi. eh, eh sa gémmiñ laa wax. maa togg ay mag yu toll ni yéen ñëw ci xew amoon leen lu ngeen def du tux yamba. doom déedéet dañu am ay rab de. mais xoolal yàmbaa ji ni mu gullee ci koñ bi ajaa ndëpp man ajaa ndëpp yéen seen giiru dund li ci des lépp ci kaso bi ngeen koy passé seen morom yaa ngi jaamu ji yàlla man ajaa ndëpp ndooy dëkk ci Medina nga xam ne xale bu daanu rab maa leen dëppal ma ñëw fii samay rab topp ma moo alaaji caamaas pour mu jëm ñoo xettali wallaay doom taxul ñu yàmbaa man de ku ma xam ci faj rek la ma xamee wallaay wallaay ku ma xam ta laa tey mborodi mborodi yaa mborodi Eh, sukkal. Eh? sukkal sukku leen sukkal nii eh, ah, sukkal sukkal laa wax jàkkaarloo nii yéen ñëpp téye leen seeni nopp téye leen seeni nopp ay doom doom jur nañ toll ni yow tournel téye sa nopp téye sa nopp jàpp leen seen nopp laa jàpp leen seen nopp eh jàpp seen nopp wax leen maa doon tux eh wax leen maa doon tux ñoo doon tux yow eh, eh, eh, ma. moo ñu wax wax leen ñoo doon tux. ñoo ñoo doon tux. tuxatuñu. tuxatuñu wallaay tuxatuñu waxal naa ki xew ma. yéen kañ ngeen commencé tux yàmba laa bëgg a xam. mag moo gis muy def caay-caay. jàng ko doo koy tari ba muy xale la ko mokkal. du ngeen ruus sax mag yu toll ni yéen. ngeen âgé taxaw fi di yàmba loo xam ne xale yi sax bàyyi nañ ko. dañuy asma rek doom asma. kii daa asma. ak faj asma doom asma. tey laay xam ba xam asma nga wala asma woo. dug leen taxaw. dug leen taxaw. eh damaa bëgg eh taxaw ni damaa bëgg nga marche ci kanaar marche ci kanaar doxal marche ci kanaar fële ba fii yéen ay mag ngeen dus leen a jàpp leen yóbbu ci kaso bi marche ci kanaar da dox mel na koy entraînement ayca marche ci kanaar laa wax ayca doom te ñu sutural xew maa ngi eh, nii sàng nii wàccal na gën a suufe wàccal na gën a suufe mars kanaar laa wax comme ni mbëri entraîné ay ca na gën a wàcc doom jur nañu toll yow eh, gën a wàcc baax na taxawal foofu eh taxawal foofu demal yow teel say nopp nii nii pompel pompel eh mère eh bul bougé la taxawal booy bougé ma lay dóor bal pompe ay ca wàccal suuf wàccal. dañoo soxla nag ñi doon togg. mère eh ah, pompeel laa wax. mère eh, ah, eh, eh pompeel wala ma yóbbu la pompeel. pompeel lii wàccal yéegal wàccal wàccal bi suuf na jóg eh kaay ni yow kaay ni ajaratu li métti na appuyez avant appuyez avant xew maa ngay toj de eh, xew maa ngay toj eh sëggal sampa say loxo say tànk si ginnaaw wàccal booy damay eh? liggéey eh xoolal damay liggéey de eh? dama lay booleeg ñoom léegi wàccal wàccal yéegal wàccal eh waxuma lool sa sa mbagg mi na wàcc eh, damaa bëgg nag léegi balaa ngeen dem comme yéen ay maire yu wër ci xew yi di tux yàmbaa ngeen ngeen taasu na ku nekk taasu fecc ah taxaw leen yi ngeen taasu fecc par kenn kenn njëkkal si yow taasul fecc na gaaw kumba maalaat a Fatma kumba yel biige yel joole eh, na fecc mi gën a métti da gën a tar kumba maalaat directeur Fatma mais booy yow lan mooy sa problème yow lan mooy sa problème la kumba maalaat a Fatma kumba yel eh, doy na doy na doy na doy na taxawal bi eh eh góor gi acca taasul fecc eh eh taxawal benn place taxawal rek taasul fecc yow dafa aju rek. taasul fecc. kii la kii moo kii moo taasul fecc. rab yee ko jàpp rek lay tudd jàmba. rab yee ko jàpp da nga naan man naa xam dara taasul nga fecc. xam nga ni boo ko defoon ci concert Youssou Ndour am xaalis eh, taxaw na yow. eh journaliste arrière allez vas-y. kay eh, eh, eh. toogal toogal fii sukkal eh vas-y yow taasul taasul na gaaw na gaaw eh sukkal eh je m'en eh xoolal ma ne dañuy aju ba mu aaj man dañu dañuy aju ba mu aaj asma bi lay faj asma bi lay faj asma bi lay faj asma bi lay faj ni may nëbbu piir nëbbu katab lay faj damay nëppal rab di fajal rab lay faj asma bi allez si waay yéen eh, eh, eh. kon nag am nañu mbég ci ak contentement bu mag di nuyu nag euh, képp koo xam ne yaa ngi seetaan rawatina nag ñi nga xam ne dañoo bàyyi xel ci ñun di nuyu tamit euh, borom bés yu baax yi le 14 juillet Euh, ñu mu ngi am ngontu maam Cheikh Ibra ñu ngi koy amal euh, le 14 ak le 15 juillet cant gi ca Rufisque quartier Kassor ki koy def nag di sant Serigne Touba dañu ko defee waa kër Sëñ Afia Mbacké daayira euh, mat la bu Afia ñoo koy def bu Tëngéej le 14 ngontu maam waaye le 15 moo doon cant yi ca Rufisque quartier Kassor ku ko dégg xam ne mooy sa yëgle mbokk bu leen ko fàtte bés bu am solo la ñu ngi nuyu Fatou Gueye chéri bonbon nekk ca Momo Sucré ñu ngi koy nuyu waaye Mamadou Sow ancien arbitre international nekk ca Gambie Sow pour la ñu ngi lay ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram yow Mamadou Sow di ancien arbitre international nekk ca Banjul ku ko gis ne ko Kouthia ma ngi lay yónnee nuyoo ku ko wax yàlla nga gudd fan mun naa suur di monde borom mobile yi yu baax yi ñu ngi koy nuyu bëgg euh, ñu ngi <laughs> bii moom dóor bu dóor bu rëy la Mounass Tour du monde ñu ngi koy nuyu borom meuble ko yàlla defal jàmm ak xéewal Lamine Sibèr Mbedd Kër Sër ñu ngi koy nuyu Fatou Sey croisement police Thiaroy borom tissu yi ñu ngi koy nuyu di nuy Kani euh, Laay Diop borom teranga nekk ca Thiaroy li ko Diop sœur de Kani Laay euh, di ko Euh, ku baax di ko ñaanal fan bu gudd wér gu yaram maire bu Thiaroy euh, borom pompe yi ñu ngi koy nuyu euh, ndimbali dool néew di doole yi la la fa nekkee ca commune ba Saliou Faye taaliba Serigne Fallou Bousso de la part de Amina moo saanu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam organisé par le conseil sopp soppay El Hadj Moustapha Sarr ca gin gineew ñooy joxe ndigal Euh, si ndigalu euh, alaaji euh, Kabir Sarr le 8 juillet ca Asalaar mooy suba incha allah ca waagu ñaay à partir de 17h bi di Mohamed Ndiaye ànd ceeg Moustapha Sarr Moustapha Niang Talla Niang président bi ak Soxna Diatta Diop di présidente bi bu leen ko fàtte takkusaanu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam mu ngi am samedi bi nga xam ne nag mooy ëllëg incha allah ci kattanu yàlla ñi ñu xamal nag 9e édition sant Serigne. Modou Mbenda Fall ñu koy organise nag mooy sëtam moo koy organisé sëñ Modou mu ngi koy amal le 29 juillet 2017 ca Guédiawaye quartier Thion Samba bés bi nag nag bés bu am solo la ndax xam ngeen ne surtout maam Cheikh Ibra Fall bu organisé bés boo xam ne nag euh, maamam ak euh, mu ngi ko duppee maamam di sant Serigne Modou Mbenda Fall organisé par Serigne Modou Mbenda Fall fils de Serigne Cheikh Mbacke Fall fils de Serigne Modou Mbenda Fall et de maam Cheikh Ibra Fall kon nag bu leen ko fàtte bés bu am solo la mbokk yi ñuy gërëm képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan rawatina Ibrahima saako ak soxnam ak euh, ñoom Ama ñoom Maysa jógee ca Canada ak tous les regroupements des Sénégalais de Canada ci turu Ibrahima Sakho bureau bi membre yëpp ñu ngi leen nuyu leen gërëm jëkkëram ñoom am ñoom ñëpp fàttewuñu leen waaye nag mbégte contentement bu mag nañu nuy monsieur Diallo nekk directeur bu Val door ñu ngi koy nuy ak di ko sant Modou Seck nekk ca Seras jaaykatu yàpp am solo Saint-Nazaire nag Saint-Nazaire woote bu mag bi nga xam ne Serigne Cheikh Imam mbake moo koy amal bés bu am solo la quinze lay doon euh, ca France muy bésu kennal seriñ Touba ki ko organisé Serigne Cheikh Imam mbake at bu nekk da koy def ca Saint-Nazaire ca France yal na yàlla may ñu fekk ko te teewe ko waaye nag di am mbégte contentement bu yaatu ci euh, ndigalu euh, Serigne Sidi Maktar Mbacke xalif général kulu Mouride sëñ Cheikh Rijal euh, gëm Bamba moo leen di yëgal le 18 incha allah màggalu Serigne Amdi Rijal Seck ca Touba daar Xudus ñun ñëpp danañ ca teew ndax bés bu am solo la waaye nag journée. Euh, Thierno Hamé Baba Talla suñu papa bi nekk fii di imam Chérif Sy moo ñu yëgal la 15 juillet lay am ca France dëkk bu ñu naan Elbeuf conférence ba moom imam Chérif Sy bokk na ci ñu koy joxe yàlla yàlla may ñu fekk ko jàmm ñun ñëpp nag ñu teew ci ndax bés la boo xam ne dafa am solo trop di am mbégte contentement ci Adialo nekk foofu nag ca Pikine marché Zing ak Ndiouga Thiam bala man see Pikine euh, euh, marché Zing ñoom Diop dakaar couture Dakar ñu ngi koy nuyu grand tailleur ca Pikine marché Zing Serigne Ousmane euh, Ben Ale le président de CREC Sénégal ñu ngi koy nuyu ak mboolem ñii woo mboolem ñu leen di woo dimanche le 16 juillet don de mooy am ca consultation consultation gratuite ca mairie ba bu Yoff mbokk yi am nañu mbégte contentement ci képp koo xam ne nag yaa ngi bàyyi xel ci loolu Ndeye Fatou Diop. Euh, euh, doobu Adja doomu Adja Awa Kara ndey euh, ndey Fatou Diop doobu ndey doomu ndey Awa Kara ca Thiès quartier R100 moom ñu ngi koy nuyu ndey faatu Diop di am mbégte contentement ci képp ko xam ne yaa ngi seetaan di wax joyeux anniversaire à Yama Gueye et Mohamed Dieng Fatou Diary Dieng Medoune Dieng ak Amadine Dieng de la part de Rabi maam jaara Mbow ak Mal Malay Mbow ñu leen di nuyu ñooñu nag suñu ay doom lañu kon mbokk yi dañuy def moom mooy dem seeti ki nga xam ne. moom mooy euh, suñu xar am na suñu benn xar boo xam ne ñu naan ko laxat laxat sàll di jaaykatu moto sama soppe la koo koy chéri xar yi ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram ku baax la ci ñun moom laxat yal na ko yàlla defal jàmm laxat sàll chéri xar yi kan borom moto yu baax yi su suñu xar la suñu wëlëra la ñu ngi koy nuyu mu yóbbante ñu ci lay conteneur mbokk yi ñu daal dee ànd ak sivop madaar naa ak bic rasoir bi nga xam ne fu mu jaar day set wicc ñu seeti Ablaye Wade bi nga xam ne takk na ay bagaasam dernier meeting tàggatoo bi nga xam ne def na ko ca Versailles avant muy dugg avion bi ñi nga xam ne ñooy militant PDS si nekk ca France ñëpp ñoo ko gugee ca aéroport ba mu def mit euh, euh, conférence bu mag bu ànd ak meeting Ablaye Wade nañu seeti góor gi pare na nee na dimanche ku ko séntu Sénégal ni ñu séntoo weer di nga ko gis benn yoon nga koy so kenn du ko seet ñaari yoon moom Ablaye Wade ñu dem seeti ko leen tàggul di maa ngi ci yoonu dem Sénégal dama ne dama waa Versailles yéen war ne mbir mi tàmbali na dama ne tey laa fas yéene jige Versailles dem dëkk bu ñu wax Sénégal dama ñi nga xam ne ñoo yeewoo fii ci Versailles waa Sénégal leen ëpp waaye tey ku ñëw ci aéroport bi xam ne yéen yéen a yor. soo gisee soo gisee ma fas yéene def point de presse waxtaan ak journaliste yi balaa may yéeg avion bi mooy dalal xelu sénégalais yi nga xam ne. tey dama jël grand boubou caaya gi yëpp teg ne. dëgg la dëgg la samay costume président. ciel. waaw ah, bonsoir. jaa jàmm waaw. journaliste nga. da ngay toog si sa morom ni da ngay bind kay loolu sax soxtu tafu di ma jege léegi nag ibbi naa question yi su ko defee journaliste bi laaj ma tontu ah. son excellence euh, monsieur le président Abdoulaye Wade. alhamdulilah ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. Euh, di la xamal ne question bi ñu lay njëkk a posé mooy. waaw lan moo waral ngay dem Sénégal. <laughs> waaye tontu leen ko. lan moo waral lan moo waral may dem Sénégal mais Sénégal li ko li li tax may dem Sénégal mooy man maay tête de liste sama liste parti bi. ànd ceeg sama en ànd ceeg sama xarit Papa Diop mi nga xam ne dafa bàyyi partem ñoo dugg sama liste pour ñu bokk taxawal Sénégal ak assemblée bu bees tax kon monsieur le président Abdoulaye Wade kon mën nañ jàpp ne yow sans yow opposition amul Sénégal li tax ñu lay woo pour nga ñëw Sénégal waaw loolu loolu loolu lu may kontaan la dinaa ko tontu ba ca digg yaar ba Macky soo ko yee quatre du matin uh-huh. ne ko koo ragal uh-huh. du la wax gaynde du la wax policier du la wax procureur ndax gaynde ma nga parc aan boo ko yóbbul sa bopp gaynde du la fekk yaa jiite tribunal yaa jiite policier ñoom du leen ragal menn jëm la ragal mooy sama jëm jiit dama rax ci dolli di la xamal ne ki la jàngal ba nga mokkal bu jàkkaar la waaw laay dox di yore gom laay dox di yore bi ki la jàngal ba nga mokkal munu laa fexe ba tiital la ci xam-xam yéen xam nga ne Macky Sall maa ko defar maa ko defar man maay opposition dama ne sëñ Fallou moo waxoon ne mooy Sénégal. lépp xam nañ ne daj na Sénégal. ah ci côté côté politique Abdoulaye Wade mooy Sénégal ndax man dëkk bi journaliste yi yow ti la seebe xam nga ko. pourquoi nga ñëw ba fii topp c'est parce que tu vas vendre ton journal. man su ma nekkul à la une journaux yi du dox. ndax ma génn. jërëjëf yow ku yaru di sa baay buy waaw looy looy soxla. amoo paas maître nga faral di yor yor pièce sa sa force. lan la. Ah. soo paree dimbali journaliste bi rek mu paas. d'accord baax na. laajal maître Wade euh, question lay posé waat mooy question boo xaw a tàng nag parce que nañ dugg ci question yu tàng yi parce que dañu gis ne yaa nekk tête de bi déjà yow boo gañee boo gañee sa liste bu gañee déjà député ngay nekk. mais yaakaaroon ne loolu mooy kuy dawal oto nekk chauffeur ba mujj nga nekk emprunté super parce que doon président ba mujj nga nekk député est-ce que yow loolu jàppoo ne rétrogressé la maanaam da ngaa dellu ginnaaw kon su boobaa. d'accord teraanga kenn du ma ko ñaam. boo ma fekkoon nag pale nga xam ne may góor ma kenn moo tëdd nelawul Sénégal amul ñëpp ngi tëdd di nelaw waaye kenn rekk moo nelawul mooy Macky Sall ah, xam nga monsieur le journal lu tax nelawul bu ma gisee du am jàmm te maa ngi lay waatal su ma tegee sama tànk Sénégal ah, ah. nga xam ne senegal am na gan goo xam ne du gan waaye dafa gan ganale maître ba tey sa beneen mooy lan mooy nekk sa sujet de campagne yow. sama sujet mooy man waruma campagne. ndax man boo ma xoolee man dama war a doon buur. sama juróom ñaari maam ñu ngi ko waalo. kuy sama dañ lay laaj sa sa géwélu juddu bi. waaw yow yéen fa wàdd njaag daara wàdd njaag yi ko mën ci soxnam xeer. waaw waaw yooyu baari Karim. waaw waaw di bàyyi sa ñi li séeri bi bi yaa léegi ma ab waxu xale ndax mag laa te waruma wax loo xam ne xëy na sax xale waaye dama ne xanaa wax day jeex ni ko xale yi xanaa neex xanaa neex kay merci ko defee gis nga yaakaar kenn du ko tas ki la ba ñaan la ñàkk ñàkk xam ngeen ne loxo si poos Ablaye la gën a gaaw loxo si poos Ablaye moo ci gaaw yor nag réew te doo joxe yaakaar ne boo joxee la nga joxe eh askan bi ñoo ko moom waroo koo joxe dama ne ci ah. xol mooy joxe. avion bi nag léegi mu bàyyi ma fi ah. waaye li ma leen di dénk mooy. gérer leen France ma gérer Sénégal pour ah les militants les militants de PDS authentique ah gérer leen ma France ma gérer leen Sénégal ah laaj bi nga mujjee la ndax avion baa ngay dem euh, maître waaw may laaj laaj bu mujj bi laaj bi foog ma laaj ko mënul ñàkk mhm. lan moo tax sa doom Karim Wade wàccul ci terrain bi ànd ak yow campagne la la parce que ñëpp xam nañ ne mag nga tu es âgé est-ce que amati nga kattan boo campagne moom la moo tax mënul ñëw ànd ak yow ci campagne dama lay dama lay tontu journaliste bi dañ koo war a wax loo xam ne moom lay bind ak silence tuuti su ko defee Karim Wade ma xamal la loo xam ne tey yow rek yaa am exclusivité bi na nga ko bind yow tamit na nga ko bind mooy est-ce xam ne Macky da doon jooy pour Karim génn ma ne buuru buuru Qatar. Ah, ah. la woon na ko munuma dëkk ak Karim Sénégal. waxal ak moom war nga wax ak baayam. Ah. mu génn. waaw léegi yaa jooy pour mu génn. ñu génn ko. ngay jooy pour mu bañ ñëw. te yaa doon jooy mu génn. moom il sait pas ce qu'il faut. man mi nga xam ne maa jur karin may ànd ak Karim ñëw ci Sénégal. waay eh, te damay defar terrain bi ba ñu suba nañuy wote. ngeen gis Karim ak baayam ci Sénégal. mais mbaa kattan gu campagne am na fi campagne euh, kattan boo xam ne mën naa def tour du Sénégal ndax am na fi loolu sama dernière question. dama ànd ak ñaar muy Papa Diop ah. bu bokk gis-gis ah, ak sama jarbaat Doudou Wade ah. ana ñu Doudou Doudou. Pape ñu ngi ñoom a jël si aéroport ñoom ñu ngi ci liste bi kii sama jarbaat la ah. Doudou Wade Pape Diop bokk gis-gis ancien maire de Dakar ñii gis nañu ni may dundee kattan ngay laaj ndax am nañ ko ay ca Pape tega teel ma bant bi sëñ bi ay ca doon nu la départ dañuy ñun marche ñu ah. Ah. course bu uh-huh. course à l'assemblée. Uh-huh. pas pare nga. Doudou. avant marque dix aller dix retour. avant marque. jugee nañu place bi nga xam ne mooy siège u PDS ci VDN bi. ña nga jëm assemblée. ayca avant marque. oui prêt. oui partez.

ku xale. ku xale. yow yow. Pape lan la. Diop. waaw Doudou. damaa sonn. ah. damaa sonn. dese nga de. am ak contentement bu mag mbokk yi di ko waxee rek gërëm nañu baax képp koo xam ne. yaa ngi seetaan émission Kouthia Show bu leen fàtte nag bésu Cheikh Seydil Mansour Sy rabial taala anhu delloo njukkal Serigne Habib Gueye al muhaddam le 8 juillet lay am 2017 ci stade Maniang Soumaré ca Thiès ñu nuyu tamit nag bés boobu nag euh, bésu Cheikh Seydi Mansour Sy rabial taala anhu delloo njukkal Serigne Habib Gueye le 8 juillet 2017 stade Maniang Soumaré ca Thiès lay amee ci ndigalu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin xalif général kulub Tidiane ak sëñ Sidi Euh, Ahmed Sy ibn euh, Aboubacar Sy Serigne Aboubacar Sy Mansour Cheikh El Hadji Malick Sy ibn Dabakh Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ibn Cheikh Seydil Mouhamad euh, Mouhamadou Moustapha Sy borom daal di rabi taala anhu conférence bi rek koy amal mooy Cheikh Ibrahima Ndaw Ah, di Iran Ndaw ñu ngi koy ñuy de passage ah, chanteur ba waykat dina am Oustaz Samba Mbodj dina am Serigne Habib Diaw dina am Serigne Abdoul Aziz Ndiaye Atta Diani dina am Serigne Daan Gueye Xasida Serigne Mass Fall Sopp Dabaax Serigne Pape Maktar nekk ca Tivaouane Serigne Xaban Gueye Xasida ak Serigne Moustapha Cissé animation ba Oustaz Souleymane Diaw ak ah, Omar Seck moom mooy nag ki yor podium ba ak programme ba midi 30 lay commencé jëm ba 20 heures lekk ak xewel yi dinañ ko joxe waaye nag mu nekk mbégte ak contentement boo xam ne ñun ñëpp danañ ci ànd ndax bés ne dañ ciy delloo njukkal suñu baay ju baax jël Cheikh Seydil Mansour Sy radiyallahu taala anhu yal na ko yàlla xara ci àjjana gën a kawe tas ñu ci barkeem yokk leeram fu mu ne ak njaboot gi nga xam ne dañoo téye ñaan gi yàlla fi yàlla bàyyi ba ñaan gi di egg ci ki nga xam ne mooy suñu waajur bu jigéen suñu waajur euh, waaliyu kaamil bii nga xam ne mooy sëñ Mansour Sy radiyallahu taala anhu di nuyu tamit Thierno Souleymani Diallo Thierno Aliou Thiam Wuro Sogi Hadran Dem Hadran Demba Diallo nekk ca Ranérou ñu ngi koy nuyu ak Harona Demba Souleymane ak eh, Ba Harona Demba Souleymane Ba maire de Ranérou ñu ngi koy nuyu Mouhamadou Anne ak eh, Sala eh, Batu salaatu Salatu euh, sa Sabalatu euh, ñu ngi koy nuyu ak Aïda Diouf nekk ci Gounass Aliou Seydou Bokar Sow de la part de Koumba Lam Diallo Ousseynou Diop ñu ngi koy nuyu ak Kati Diop nekk ci Tëngéej Ngendal 3 et la famille Diop et euh, topp Serigne Badou Pouy nekk ca Mbaaw madame Ako Ndiaye ñu ngi koy nuyu présidente Ndimbal Jabot troupe les flamboyants fil les flamboyants films ñoom maman Binette Assou Ndeye Fatou Lay Bay Mohamed Aram Thioumbe ami yaayu Ana ak Kati doomu ndeyu polymata de la part de Mounas Diop ñu ngi koy nuyu Laxat Sall Chéri Khady Kane borom moteur moto yi si scooter suñu xarit Pikine Télé bu mag xaritu waaye kii mooy Chéri Kane euh, Chéri Khady kan moom mi nga xam ne madame Sall Laxat Sall moom mooy kii euh, fuural bëgg a jëm ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Ndeye Fatou Diop doomu Ndeye Awa Kara ca Thiès quartier r nuyu nañ ko maître ali Fall président sixième édition tournoi thème dame de Grand Yoff Akido le 15 juillet lay am à partir de 16h ci école Mor de Grand Yoff population bi yëpp ñu ngi leen di invité ñu ñëw ci bés boobu am na solo trop waaye tamit di xamal ne. Euh, euh, fans club euh, Mao Cissé bi nekk ci Télé Futurs Médias mooy xale yu jigéen ñi nekk ca mbaaw ñu ngi préparé tànn béer bi nga xam ne moom leen Mao Cissé waxoon ne bu ñu paree ci koor gi moom leen jox nee nañ jot nañu financement wu 100000 francs pour def tànn béer bi nga xam ne Alaaji Mao Cissé nekk ci religion euh, TFM religion moo leen may sabar boobu foofu ñu ngi koy amee nag en face plage bu Ah, mbaaw daaw defoon nañ ko ay tama ren nag sabar dañ koy def te moom nag ki nga xam ne mooy parrain bi te financé li xam ne mooy tàkkusaan bi nee na daal bu sañoon dinañ fa def li nga xam ne moom mooy ràcc ak tamit nu sa pooj mel <laughs> waaw gis nga de gis nga de commune am ngi nii mu ngi moo commandé ne ràcc ak nu sa pooj mel xam nga ne kii ma kii kii ah, ah mu ngi kan boo boo ko foo koy taf moo ko def de moom loolu moom kenn ko def mu amul sax xaaral ma ñëw lu leer laa la wax kii yéen eh, bébé Amadou Dieng depuis Kaolack ak bébé Fatou bintu Camara Baba Coiffeur plan Jaxaay Birane Gueye plan Jaxaay Mbacke booy bu baaba coiffeur plan jaxaay ñoom Fatou Bintou Diop ak Arafat Serifisk ak Mame Diarra Diop de la part de promotion yàgg suñu xarit la promotion moom lu mu bëgg dañu koy defal waaye mbokk yi ñu ngi am mbégte contentement ci képp ku seetaan émission Kouthia Show di delluwaat di nuyu Mamadou Sow ancien arbitre international ca Gambie ñi nga xam ne nag ñooy jigéen ñi dëkk ca Mbaaw te euh, def tànn beer bi nga xam ne Maaw Cissé mooy seen parrain maa ngi leen di xamal leen de <laughs> euh, man ba ma déggee maa si sa démb ca Dakar Dorpa laa xam ne ne <laughs> delluwaat na ci mënef lamb ak Dakar Dorpa rek ci maa Cissé du ko tardé waaye diina gi fa lay nekk naa la xaaral ma ñëw fii la maaw te paye nag dañ koo wóolu na xamal ne maaw de am na téléphone boo réer boo xam ne ay tànn béer la ci film yoon yoo xam ne yooyu moom xam naa ku ko far moom boo ko indee moom dara la du man mbokk yi dañuy dem seeti Macky Sall mu tontu Ablaye Wade Macky Sall nag li muy tontu Ablaye Wade boo leen ko bëggee xam dañu seeti Macky. Bourguédé ari Lamtooro ari Bourguédé ari Lamtooro maa ngi am mbégte Ablaye dafa war xam ne mag la du xale te réew mi ñëpp na lañ ma bul ko tontu bul ko faale continue sa liggéey man la loolu laay def ndax wax ju ñaaw jógul ca fa mu jóge dëkk fa mu cosaanoo la jóge moom moo xam wax ju ñaaw du ko wax waaye man du ma yëkkati wax bu ñaaw di ko teg ci daram barke Demba laa waxoon na sama papa la tey ma waxaat na sama papa la ëllëg damay waxaat na sama papa la ndax loolu su ma ko weddee média yi nga xam na ñoo yor élément sonore yi ak visuel mën nañ ko wane ne moo waxoon lii tey weddi ko kon dama ne Ablaye Wade du ma musa di wax teggi ndawal ci sama diggante ak moom lépp lu ma Ablaye Wade wax ak lépp lu mu jëm la ci kaddu jëm sama jëmm ak suma njaboot ak suma gouvernement man baal naa ko ci baaxaayu suñu borom dama ne monsieur le journaliste balaa ma lay jox kaddu gi da may wax ñaar lenn laa dul nangul Ablaye Wade mooy moom moo dem ba am téeméeri at ma judd après indépendance mënu maa gën a xale bu xonk tur lu ma mësul nangu nag laay nangu tey mooy looloon ma def loolu ma def ko jëm ci kuy wane ne yaa ngi ci état de forme pour wane ne xale nga monsieur le journaliste à vous question euh, monsieur le président son excellence monsieur le président Macky Sall ñu ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay fay euh, sama première question mooy la suivante li ma lay laaj la s'il vous plaît monsieur lan la ko je Tiboula. journaliste de peuple. waaw lu dama nga toog si sa ndaw lay lan la. waaw taxawal à côté loolu dafa jaral ngay laqatu man pas mes responsabilités ci journaliste vous êtes des amis on va collaborer pour le Sénégal émergent. acca tàccu loolu. son excellence monsieur le président Macky Sall. maa ngi lay nuyuwaat bu baax. di la fay euh, di la xamal ne question yi mën a njëkk a mooy naka nga gisee campagne bi ñuy waaj dugg ban njort nga ci am gis-gis bi nga gisagum ne campagne noonu lay waaj a tàmbale ak écho yi nga am ci dégg ne candidat yi ñii ak ñii ak ñii nan nga gisee campagne bi nan la profilé woo. njort bu rafet. ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mais dañuy wax dëgg te yàlla tax bu fekkee ne yéen a ngi seetaan gis ngeen ki nga xam ne mooy Ahmadou Ba barki demba protocole d'accord yu mu signé ak banque bi nga xam ne mooy banque mondiale ak union européenne ay milliards milliards ñoo fi dugg trois cent milliards pour defar li nga xam ne mooy aménagement aménagement urbain bu Sénégal train boo xam ne day bàyyeekoo fii mhm. di dem ba Mbour mhm. te maa ngi préparé ay bateau yoo xam ne pour dem fi nga xam ne mooy Makka ñu delloo cosaan ci booy booy ba léegi bateau yi di dem ba Makka lenn lenn laa bëgg ñu xam ko dama ne lenn laa bëgg ñu xam ko monsieur le journaliste dañ ma doon sikkal naan Macky Sall du joxe loxo bi dafa dagg Macky Sall du social dama ne loolu bi may soog a toog ci bopp nguur gi la bi ma fi ñëw fekk ma fi dara mais loo fekkul doroom moo koy joxe te l'argent du contribuable du ku nekk na koy jox parce que c'est les Sénégalais qui paient les impôts et ces impôts ne doivent pas aller dans des gens yoo xam ne dañ ko utiliser à leur profit ci sama mbaaxaayu bopp ak sama mbaaxaayu juddu. waaw man ku ma fréquenté xam ne man nit ko xam ne boo ma laal sama dignité. war nga wax ma li nga xam ne moo lay jàppale. dinaa taxaw jàppale ci loo xam ne boo ñëwatee doo ma ñaan waaye danga may wan li nga liggéey. Sénégal noonu nga koy dimbalee waaye joxe ay mallette à gauche à droite socialement de passare passare xaalis réew mi du man maay dox ci loolu bind ko nga ne waaye yow lan ngay dox di war ay bu ma waxee lu ñaaw ngeen xëy bind ko mais soyez raisonnable sa kee sa collègue la il pose des questions naturelles soo amul big nan ngay duggee fii mm-hmm. bu cangee mu beneen big monsieur le journaliste euh, monsieur le président dañu gis ne sa principal problème mooy dakaar gaje Dakar moo nekk sa problème mm-hmm. mais candidat bi nga xam ne moo nekkoon candidat bi leen sonaloon Dakar mi ngi ci kaso bi waaye léegi bu ngeen xoolee ba ñu gañee leen Dakar naka ngay jëflanteeg ñi nga dénkoon Dakar. tontu nga ko bu ngeen xoolee du ñu xoolee. waaw bañ dul xoolee. Amadou Ba j'ai confiance en lui. mais yàgg yàgg ngeen mais yàgg ngeen a def ay moyens ci Dakar dama lay dama lay je sais je sais Ba soo gisee ma jël ko dénk ko Dakar du positionné moom rek moo xam Dakar ah Diop Sarr nga ci wetam am ñeneen ñoo xam ne directeur de impôts Cheikh Ba nga ci wetam am ñu liggéey moom pour wane Dakar dañ koy jël teg ko suñu loxo on a les moyens logistiques on a les moyens les moyens humains logistiques et les moyens matériels et financiers pour taxawal li nga xam ne mooy la reconquête de Dakar sur le gîte de Macky Sall. Macky Sall Macky Sall Macky Sall yaa ngi bind. ayca sa benn laaj. so dernier laaj parce que dama am ci inauguration yu ma jëm. yoroo xanaa journal bi ngay jox duñ la jox per diem. man nga wax grand. amoo paas amoo bic baal métier bi. waaw amoo paas amoo bic baal métier bi ban journal nga bind. ban journal nga nekk. xanaa bic FM nga baax na. ca yàlla ma ñëw lijjanti la. billaay de sa kasa patron de presse. pour sa patron de presse. patron na. ok d'accord léegi laajal dernier laaj bi. a euh, régler le problème tout à l'heure euh, monsieur le président. waaw ah. beneen question bu tàng baa ngi nii di ñëw. maanaam son excellence. Hmm. maître Abdoulaye Wade ancien président du Sénégal. mi ngi ci yoon bi di egsi waaw na ñëw ak jàmm su ñëwee noo fas yéenee dalalee ko ak noo fas yéenee sa gars yi jëflante mais nit ñi doom di taralee baayam waaw ko ubbil dinañ ko ubbil fi xam ne fa la leen jaar jaarloo ko salon d'honneur jox ko ay policiers yu ko escorté mettre ko dans des conditions de règle de l'art parce que àdduna moo ñu seetaan man je regarde pas le président Ablaye Wade may leen ma président Abdoulaye Wade xoolee ma ko kon un opposant dam ko xoolee kon papa boo xam ne moo la tàggat te danaa ko woon ne ko papa xale mooy def politique mag day conseiller xale ci politique boo ci toll ci yenn àdduna xale la. léegi nag comme nee nga yaay xale te xale moo war a politique moom nag moom nag def nañu moo interview war nañu li mu mëne nee na quatorze régions du Sénégal mën na koo wër te du sonn du xiixat ñu bëggoon yow nga wan ñu. ah mën ngaa wër ah, quatorze régions bi te doo sonn. président rek ci jantal. dafa mel ne dafa mel ne nga ne Mbaye na ma Mbaye Gueye baal Mbaye Gueye Tigre la bàyyi bëre. Hmm. am écuram ut ay raxam ak ay doomam yu koy bëral ci turu écurie bi. Hmm. man moom mooy Mbaye Gueye. waaye man du ma Tigre Fass. laaj ma man maay kan man maa la roi des arènes bombardier waaw léegi Mbaye Gueye Mbaye Gueye tigre buy bëre ak bombardier ñi sax du dugg parce que dañuy xam na loolu mar day tàng waaye dina ko jox cër nag cër googu laa koy jox dinaa la wan ne mën naa daw mën naa taxaw mën naa naaw te réew maa dox weesu dox réew maa ngi daw bu dee daw la Sénégal mooy daw jëme économie ci benn yóbbu ko ci fukk ak ñeent jëm ca loolu na ma ma defal la ko ah. te nag Boun Abdallah Dionne hmm. Abdallah sama premier ministre bu jom ma baa ngi nii moom mooy tête de liste moo ko yor kii li ma yenu ah. su diisee moom laa ko yen mu antan ko su ma naree yenu mu ne ma président baa ma yenu ko ah. kon ku ku ma antan antan nga réew mi dëgg la mais ñëpp nee nañ du politicien bu mag de lu am solo mooy dina leen wan ne Ablaye Wade comme comme moo mun def ay jeu de jambe di daw di ñëw ak suma ñun ñu ci nekk acco dawal moom ka Borno ndeysaan ah, Abdallah Borno a doone Mohamed Borno Abdallah joxu ba ma paas Abdallah Borno joxu ba ma paas taw taw maa ngi ñëw lu ma diis diis dina ma antan ah, lu réew diis diis diis antan nañu ah, ko li sport na moom ci boppam waaw na ma parce que man diis suma diis boo xam ne man mooy dem entraînement yéeg sa oto di entraînement mënul nekk yéeg sa oto di entraînement de mooy lii waaw waay. dogal Abdallah non non non garaawul. daf ma bu saalum saalum boore. fay fay sawa caca. fay fay fay fay fay sawa caca. neefal na nooro. réew a dem na xool ndox. fay fay fay fay sawa caca. fay fay fay fay fay sawa caca. neefal na nooro. réew a dem na xool. léegi li ñu def nii lan escalade à cheval mooy fas yi nga xam ne dañuy tëb xanaa sport bees la antan na ma ah. léegi nag saalum saalum la may saalum saalum ndax Fatick ak Kaolack soriwul dëgg la mooy tëb de liste bi ah. tey nag waa Sénégal laa leen di may loo xam ne musuma ko nangul benn doomu laaj leen Marème Faye sama anniversaire jot na eh. ma nekk ak moom boobu nekk gu ma président mu ne ma cadeau bi ma bëgg mooy nga yëngal sa mbagg rek ma gis te ndax Macky mosuñu la gis eh. loolu foor na comme que dañu wax ne man dama sori askan wi dëgg la tey ma wala na jege naa askan wi benn émission laay seetaan Sénégal muy ban mooy Dakar ne dort pas <laughs> ayca loo leen tëgg muy fecc ko loo leen taas ñu fecc ko ko ci ndaw rabbi ndaat say ak lépp ci ceebu jën ak ba ci gumbe ba ci baramay ay ca yéen a ñu déglu sama maram mooy Kumba ma yóbbu leen ma version salsa wala ma salsa oh salsa hey salsa leo si Ndiaga Ndiaye bu leen yegg ci tata yi